assalaamu aleykum waaye billaahi wallaahi tallaahi waxoon naa ni keroog ma ni Serigne Mansour diggante samedi ak samedi la dimanche joxu fi samedi la gane àdduna samedi la dem dara ñaaw ci moom bi mu fi toogee ba dem rek moo doon ittee tuawaan tool yi téere yi damay wax ni ñett la ko yàlla defaloon fexe woon na ba boo nee borom daara boo bindee lettre sànni ko ci réew mi muy taxawaal boo boo boo amee njub ak mbaax da ngay jël ba doon tele def ci benn bi fexe woon na ba sof nit ñi lu mu wax ñëpp déglu ko ñëpp mu eskay safoon na yàlla ba boo ko nee ñaanal ma ko bind sëriñ moom su mos ma xam la nee jeex na jeex na borom ba si lay moom dafa noo dafa toog woo Serigne Cheikh woo Serigne Moustapha Sy Jamil woo Mame Malick woo ma wallahi tallahi ci fàntire ñu toog Serigne Abdou toog mu ni bés ni ki tey Serigne Cheikh nettali na ko keroog te ziyaaru daara dootuma seen kilifa dootuma seen baay dootuma seen sëriñ joxoon Serigne Abdou ni seen baay yaay seen sëriñ yaay seen kilifa sëriñ bi tey lañu la bëgg a wax ni la ñoo ngi engagé wu ñun ñëpp njabootu Cheikh Seydi Mouhamadou Mansour jëlaat buum bi takk ko ci suñu digg jox la ko tey ba ëllëg boo nee wii ñu ni wii boo nee ñoo amuñu kenn ku ñuy soxla ku dul yow ak Seydi Hadji Malick ak Cheikh Seydi Mouhamadou kon si njaboot gaa ngi noonu lu koo wax ni ko sa baay dugg fi lay wëri kenn wëriwu la fii la la dëkk ci wetam nekk ak yow di la tette tette benn benn nga ànd ak sa waajur yii négoo ba dem négoo ba mu dem ngay soog a ñëw kon si noo ngi ànd ak moom ci ginnaawam ak Serigne Moustapha si jëmil rakam ak maam maam Malick mii nekk ci sa ginnaaw soo nee ay ci ñu ni ay ca boo nee al ñu ni al xamuñu fenn demuñu fenn Serigne bi réew mi na dëkk bi naqari na soxla yi bare na aajo yi bare na yaa ngi soxla yaa ngi nit ñaa ngi guddi altine gaa ngi Cheikh Seydi Mouhamadou Mansour koo gis mu nekk ci tànk bii reetaan na ca def yëpp gémmiñ gaa feeñ waaye xol ba réew koo ci gis li mu yor ci soxla xajul ci biir tànk mën nga ko sañ nga ko fajal ñu ko aada yi danaa ci wane ñëwoon sëñ Babacar di def ko ci wetam kii la ma gis la sax sëñ Mouhamadou Mansour ne lépp lu ma xam fekk na ci Abdoulaye kii la sëriñ Cheikh jëloon ne lépp mu ngi ci loxo sëñ Abdoulaye Amady kon mbooloo mi kii la ma ñu waxoon sëñ Abdoulaye doy nga mag ñi doy nga ndaw ñi kon doy التي تقوم بها دائرة الكون من أجل تسمية وتوعية وتوجيه الشباب توجيها إسلاميا صحيحا يمكنهم من السير على هدي القرآن الذي يهدي الشباب في كل مرحلة من مراحل التاريخ معد نهضة الأمة الإسلامية وسر قوتها ومبعث عزتها وكرامتها وحامل لوائها القائد بحافلها إلى المجد والنصر والعصبة المؤمنة التي تركزت في دار الأرقم وعلى يدها تحقق نصر الإسلام كانوا شبانا فالرسول صلى الله radiyallahu من الآثار الطيبة ويتبنوها وما عليها من آثار خبيثة تافهة ويتجنبوها ويتخذوا من ذلك التراث أساسا لبناء حياة سعيدة لحاضرهم ولتهيئة مستقبل زاهر للأجيال القادمة من بعد ورسوله صلى الله عليه وسلم قد وضع أهم ركائز الأعداد والتكليف من الناحية الروحية والخلقية والعقلية والجسمية والنفسية وقال في إعمال الشباب على طاعة الله سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله وعدل منهم شبانا أو شابا نشأ في عبادة الله وقال في دعوة الشباب إلى اغتنام الفرص من أجل تكوين شخصيته روحيا وعقليا وخلقيا اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وغناك سيحتك قبل مرضك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك وقال في عصمة الشباب من الملوعة والانحلال وإحسانها بالزرع من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه قال في محاسبة الشباب ومسؤوليتهم أمام رب العالمين يوم العرض لا تزال أو لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربعين عن عمره فيما أملاه وعن شبابه فيما أملاه وعن ماله أين التسوق وفيما أنفقه وعن علمه ما عمل به فقال في استقامة الشاب على منهج الإسلام واستمرارهم على تقوى الله إن الله لا يعلم من الشاب الذي ليست له صفوة وتلك أهم ركائز العباد من بلاد الشباب بناء إسلاميا صحيحا يا أيها الأولاد إن سموكم يزداد بالإخلاص والإنصاف أوصيكم بثلاثة من شأنها تسهيل سيركم إلى الآداب أوصيكم تأدب وتفكر وتعمق في البحث كالأسباب فالمرء بالفوضى يزل حياته ويبدل الإصلاح بالإسلام ما زالكم مثل السكينة في الدنيا ما شأنكم مثل الرضا في هتافي بالختام يقرر شكرا العميق لابن الانوار الحالي مالكي الذي لا يدخل اي يمين في سبيل اداء شان الحضاره المالكيه وندعوكم جميعا الى مزيد من الجهود لمواصله المسيره سائلين الله

ñu toog ca gannaaw la ci benn mbokk bu dëkk ñuy liggéey ci biir nag maa maa suñu reen yaa góor bi waaw benn question ñetti laaj la ko te kenn boo ko ci sa morom réponse ñu ne waaw xam jamono dafa baax mu ni ñu bari dem na ci màkk ñu bari di ci waaj a dem màkk soo taxawee ne dafa Sénégal ndax pour saa yi pour sa pour sa taalibe taxaw wala sama sëriñ nee na daganul gis ku ko tontu ni waaye bu mu rey waaye dàqul dàll nit ñi ñu tur kay yekkat ku ko indi yow ñu ne ca koom ajjana safara nekkul ci sama la te yéen mën ne yàlla yaatu na ngir dégg jamono noonu la baax bés ñoom soxna yoonam rek jóge Dakar bàyyi yooyu kenn xamul moom tax ñi ñëwee nag ay noonu lañ nekk ak ñoom ca Dakar dañuy dañuy gis seen sëriñ nan leen neex ci lañu ciy ñaawal nan ngeen di ngeen gis seen sëriñ loolu nag te mu jël li ñu gis ko wala ko waxee rek kanam gi daal ci sotti lu ko neexu ma génn suñu takku di wër di doxantu ci mbedd yi di génn di xool lu ci doon wurus nag nu takku yàlla tax ñu ko wax ne nee na mag yow amul wurus àjjana la ñu am bu ñu ko muñee bu ñu muñee wurus am àjjana ji bu ñu ko muñul nag dañu xam ne ko yàlla ci jot yàlla ko mu ko yàlla ko mu ko mun nañ ko waaye soxna si loolu la ko tabaarakallahu loolu mu doon léegi xam ni moom moo di lu ko dee ko defi xomb lu ko jëkkee def mu ñëwee man ko dee ko defi xomb di métti li jigéen ci yaay may ko ndax sëriñ baa ngi jëm mag ñëwal ci xomb lu toujours man ko

Serigne Cheikh Tidiane wax naa ko ko dama ñëw ñu waxtaan dama dara xew ñu wax ma ngeen yi ko Serigne Babacar defal yëpp ba Serigne si jox na ma ñetti milliards kenn ci yéen mun ma dem na jumaa ji bu ñëw yónnee woon ma ma jub ko mu futti ma mu sol sànni ma ko ni ma ma defal li ma samaam defal mun ma ci laal feebar nit nee na ma kër gaa ngoog may naa la loo ci xalaatati nga doxal ko te booba yaa ngi taxaw ma ne ko waaw loo xam ci xamoo yow da ngaa fàtte ni du la xaqiqa ba lay aada boole la waaw ma ne ko bu la xaqiqa ba lay aada boole la ma ne ko da ngay def loolu fii moo la ko waaye léegi nag la wax léegi xar dafa la la a la yaa ngi wax yaa ngi wax. waaye dama la wax. nga jël ci nga jëmu def yow mu indi ne kii teg commencé na waxtaan ak moom moom mag mu ni ko mën a gisee daal da nga muy niru ku naru la dellu Sénégal sama borom ba bu ma yàlla moomee ngeen suul ma fii ci bàq yi nee na mag ma ni ko waaye yow de sa xam-xam bi ni mu leere ak sa diini ji ni mu sell soo dellu woon sa réew woote ñaar sax daan la toog te léegi yéen di allahu bika rajulan waxida xayrun mina dunya wa ma ñu ko benn nit ku naroon sànku rek nga fexe ba tëggaat ko ci yoon yonent bi nee na moo gën àdduna bi yi yëpp ku tee nga dem nga sooy di sa waa réew mais gi waxul ak moom yonent bi wax moom ci lan bi ñu góor gi ndeysaan maaruful karax yi maaruful karax yi benn wëriñu la woon bu koy waar dafa daan doxloo garab yi sax si Abdul Qadir Jilaani moo doon sëriñam waaw si Abdul Qadir dafa daan doxloo garab yi garab yi jó jógal bi nga nekk waay kay wuy si moom ay waaye gis nga mu taxawoon maaruful karax yi te mooy sëriñam mu ni garab yi déplacé ñëw waay garab gii bu maaruful karax yi xool ko ñu koy bu ñëw de garab bu nekk dëkk tey si Abdou Khadre ñu ko wax ñëwal maa ngi garab yi ko bu ñëw de maa ngi garab yi nag dafa def benn xasida ci yeneen يا ياسين مثلك لم يكن في العالمين وحق من نفاك أنت الذي لولاك ما خلق امرؤ كلا ولا خلق الورى لولاك di dem benn kàddu yi ba léegi nit yàlla yi dañ koy mokkal di ko di ko jàpp mais ni mu ko defee rek bii seet mu jël buru yoon bi joxagu ko kenn ci guddi gi la ko def jël bu yoon bi def ci poosam maa ngi leen ziyaare yonent bi déggal ko li ma ko wax ñu mu ñëwee kenn ci gardien raw bi mi dogale ko jox ko loxo téye ci loxoom taril ko xasida ba ba mu jeex pour moom yow ko parce que li bii laa ko def broullon baa ngi nii sottee bu ma ko sax mu sabat baa ngi nii yow ma ko fajar ma ko ñu ne ko yeneen ci bee ma ko dicté bi mu ne ni yeneen ci bee ko terale mu jaar ci lamiñam waaye moom moom moo def parce que dañ ci boppam Seydi Hadji Malick gi nee na di góor gi waxee moom loolu nga ni yeneen ci na waaye borom xam-xam xam ko waaw mu ngi il faut mu jaari Caire jaari Égypte booba Alexandrie mooy centre xam-xam fa nga jaari toog fa jàngale fa tuuti may fa yar continuer dem ba Union soviétique dem Bukhara dem Samarkand nga nga xàppale du ko na romb alxuraan yi loolu ñëw Sénégal moom moo tax moom naa ñëw mu tax nga am xam-xam ba noppi tukki waaw boo amee xam-xam tukki doo yem ak ki am xam-xam tukki wul doo dellu Sénégal bismillah yàlla toog nga mën ko kii Mahmoud mii nee na El Hadj Malick mu ngi bari xaw ma Cheikh Omar nga xam ne mu naan def El Hadj Malick lii doon ko gën moom te bés mu ñëw na ko bàyyi ñaan naa yàlla def ci El Hadj Malick ay waa ji de maam mooy yaa bari sol non non man mii sa bàyyi ñaan bu ma gàtt yow nga ne yow naa ko nag muy El Hadj Malick waaw ba mu gisee Maodo nag ñetti fan rek laa moom ne ko fas yéene teqali koog yow. ñu di des ci bopp noonu de wis ko ndax li mu nekk mu mag mu mag toog ci yaam bi di maslaa feeg moom boo mu am sept ans ba mu ne leen Maodo ko sàng sang sang ko jullee ko suul ko tisbaar mu jiite leen tisbaar miraas takkusaan mu jiite bi takkusaan taat bu leer ngeen kii rek moo ngi bàyyi dem na daal di dellu ndaam nag moom delloo ndaam nag toog tuuti gis ni daal ba tey baaxul wax daf daan wax daana ko wax bokkam yu baax yow moom ak Alaaji Abdoulaye Niass wax ko Serigne Touba seen waxtaan mu bu leen Serigne Touba bi ñi ngeen leen soree rek ñu mën la boole ñoom waaye soo nekkee ci seen biir di wax lu ñuy dégg ngay def ñuy gis yàqkat yi ñu mën a yàq moom dafa ci feere yow waaw mu dellu si ndax tool ni baaxul waaye muy jéem xam na fa la ko jël question waa ci wàllu kat nga dañu bëgg ku ñu fi ne taxawaan teew lañ ñu fekk loolu doo ko indi ci waaw waaw ñu cosaanam moo tax toujours danaa ko def nii ñu ne Touba Touba Touba mooy li bokk bi Touba Serigne Touba ko moom teewoon nañ man pour nga liggéey rek man ko moom. mooy leen ñu ngeen ñu dëgg ko nag moo ko jël. الشيء وفي الدار والمرأة والفرس yonent bi nag su fekkee gaa am na ci jigéen lay am wala fas wala kër lu ma am doon gaafu kër du daal lu dëkkaale bu bon rek loolu gaafu fas muy fas yu màtte baa muy yéex rek mooy gaafu jigéen mooy jigéen yoo xam ne jaarul yoon waaye di tànga ju jigéen joo xam ne ko takk dee wala ñaax wala fas boo xam ne boo ko jëndee umu wala kër goo xam ne boo ko dëkk wala yooyu xalaatu wolof la rek ndeysaan ba mujj mu ni ma waaw tee naa dem rek wax mu ma dem ci achi ma dem achi yow si kër gi dañ ko mu ji mu ne ma waaw ma ne ko mais kër yaa ngi jaay trois cent mille francs deux cent mille yow nañ góor ji trois millions yow muy jënd bu la neexee nga nekk xaaj wax naa li ma bëgg da ngay wax ne ma ne ko wax ma jaay jaay bu góor fay naa la trois cent mille francs ñu waaye yow tamit yéen nga tuuti ma xam ne ci wàcc ma ne ko naa la ci bëri cent mille ndeysaan jënd ko rek indi ko mu ñëw xamoon na ni dañ koy denc maa ñëwaat mun ma seedeel ma ko wane ci gën te bu ko seedeel ci dara ñu xamoon dama bëgg dëkk bi yéen dëkk bu sax man dama xamoon li tax ñuy wax loolu li nga moom mooy boobu lañ koy ne dëkk bu sax ko ko defee kon tabaarakallah ñu lay indi rek doom ak jëfam dootul fay ilaa yow mi diin yàlla moo ko yaatu dënn xam-xam